yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu juróom-ñeenteelu njàng mi yàlla bàyyi na seytaane metital ayuba nanu bamtu nettali bi weesu benn lan la yàlla dig aadama ak awa dig na leen ne kenn ci askanu jigéen ji dina daan seytaane ñaar kañ la nit ñi teqalikoo ak yàlla bi Adama bakkare ñett lu tax yàlla wàccee mbënd mi wàccee na mbënd mi ndaxte nit ñi dañu banoon ñent lu tax yàlla def nit ñi wuute ay làkk bi ñuy tabax taaxu babel li tax yàlla wutale làkk yi mooy dañu bañoon a tasaaroo ci àddina ñi leen ko yàlla sante woon dañoo boole woon di jéem a may seen bopp ab dayo mbind mu sell mi nee na ci ayuba saar benn aaya benn aaya juróom benn aaya juróom ñett ba aaya fukk ñaar amoon ci réew urs genn góor gu ñuy wax ayuba waa ju mandu la woon jub am kóllëre ak yàlla tey moytulu lu bon benn bés malaaka yi demoon ngir daje ji ak yàlla seytaane ànd ak ñoom yàlla ne seytaane ndax seetlu nga sama jaam ayuba amul moroom ci kaw suuf nit ku màndu la jub ragal yàlla tey moytu bon noonu seytaane tontu yàlla ayuba ndax séntuwul dara ci li mu ragal yàlla ndax du yaa ko aar moom ak waa këram ak alalam barkeel nga lépp li mu liggéey juram yi bare lool ci dëkk bi waaye laalal alalam kon wóor na ma ne dina la moolu yàlla ne seytaane jébbal naa la lépp li mu moom ba mu des lenn rek moom ci boppam bu ko laal bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla bàyyi na seetaane mettital ayuba nettali bi mu ngi aju ci genn góor ak mettitam am na lu yàgg lool genn góor gu tuddoon ayuba mu ngi dëkkoon ci réewu ut ku ragal yàlla la woon te juboon ayuba amoon na juróom ñaari doom yu góor ak ñetti doom yu jigéen amoon na itam alal ju bare juróom ñaari junni xar ñetti junni giléem juróomi téeméeri nagu mbay ak juróomi téeméeri mbaam yu jigéen moo ëppoon alal ca réewu ut te amoon na jaam yu bare at bu nekk bu jenn doomam jugóor di màggal bésu juddoom dafay woo doomam yépp ñu teewe ko noonu dina rey ay gàtt lakk leen muy sarax ngir doomam ju nekk ngir seeni bàkkaar benn bés malaaka yi ñëw ci kanamu yàlla seytaane dañu ko doon woowe iblis bu jëkk ñëw itam yàlla ne seytaane ndax gis nga ayuba nit ku jubla te du def lu bon seytaane tontu ko yaa koy aar moom ak alalam waaye su amatul alal dootul la jaamu te dina la móolu noonu yàlla jox seytaane sañ-sañu def lu mu bëgg ci alalu ayuba ñu teg ca tuuti ay nit yu ñu wax waa saba songu baykatam yi rey leen jël nag ya ak mbaam ya gannaaw loolu safara wàcce asamaan lakk xaram yi ak sàmm ya ay nit jóge kalde sàcc ay gëléemam rey sàmm ya dollu ci ay doomam doon xawaare ci seen kër mag ngelaw lu mag daaneel kër ga ci seen kaw ñu dee ñoom ñépp noonu ay wane yaramu neen lay ñëwee àddina yaramu neen lay génne àddina borom bi moo ma jox lépp li ma am te am na sañ nangu li mu moom loolu lépp dal na ayuba waaye mooluwul yàlla seytaane dellu si ci yàlla ne ko su ayuba amatul wérgu yaram dootu la jaamu te dina la moolu yàlla tontu ko defal ak moom lu la neex waaye bu ko rey seytaane def ay góom ci yaramu ayuba ayuba toog ci kaw doomu taal di wokkatoo tëjutu ndaa jabaram ne ko mu moolu yàlla te dee ayuba bañ ayuba ne ndax yàlla lu baax rek lay joxe ñetti xaritam ñëw ngir seral xolam bi ñu ko gisee xamewuñu ko bu baax ñu toog ak moom juróom-ñaari guddi ak juróom-ñaari bëccëg waaye waxuñu dara mu jigi ayuba ubbi gémmiñam moolu bës bi mu juddu noonu kenn ku nekk ci xaritam yi wax ku nekk wax ayuba ne yàlla daf koy atte ndax bàkkaaram ñu ne ayuba war na baalu bàkkaaram ayuba laaj leen naka la nit ki mën a jubee ci kanamu yàlla ayuba saar juróom-ñeent aaye ñaar moom du nit ni man bama koy mën a tontu walla ñu dem yoon atte amul benn ràmmkat buy dox sunu diggante dinu boole teg ñu loxoom ngir jubale ñu ayuba saar juróom-ñeent aaya fanweer ñaar ak aaya fanweer ak ñett gannaaw gi mu tontu ne sama musalkati ngi dund te dina mujj taxaw ci kaw suuf bu sama yaram dee dinaa gis yàlla loolooy sama yaakaar xaritam yi dëgër ci naan yàlla dafa koy atte ndax bàkkaaram waaye ayuba moom it sax ci ne deful lu bon xelam dem ca ba ko yàlla daan wottu te barkeloon këram léegi tekkeetul dara bànneexe mujj nekk naqar ayuba laaj lu tax yàlla teg ma metit lan laa def lu bon mujj gi ñetti xaritam yi noppi waaye eliyu benn waxambaane wax waaye moom itam wax na ci mbir mu mu xamul niki ñeneen ñi ganaaw loolu yàlla wax ak ayuba ci biir caluweer yàlla wax ayuba yaay kan bay wax ak man foo nekkoon bi may sàkk àddina ndax mën nga yilif weer wi biddéew yi melax yi dënu yi ndox mi ak rabu àll yi ndax ñemeti nga jàmbat ci kanam yàlla aji kawe ji ayuba tontu wax naa lu ëpp ci mbir yu ma ump dégg naa say mbir waaye tey gis naa la kon rëccu naa samay kàddu yàlla wax xaritu ayuba yi ne juum nañu ci lu ñu wax ayuba yàlla wax leen ñu lakk sarax te taalibeem ayuba ñaanal leen bi ayuba ñaanalee xaritam yi yàlla mayaat ko alal wér yaram ak mbégte lu mu amoon benn yàlla defal ko ko ñaar yàlla may ko yeneen juróom-ñaari doom yu góor ak ñetti doom yu jigéen ayuba gis na ay sëtaati sëtam ayuba dund na dund gu yàgg te neex fiila la nettali bi am na ay laaj benn ndax yàlla moo mettital ayuba déedéet waaye moo bàyyi ñu mettital ko ñaar kan moo mettital ayuba seytaane ñett ndax yàlla atte na ayuba ndax bàkkaaram déedéet seytaane moo mettital ayuba ngir ayuba moolu yàlla ñeent ndax yàlla sàkk na ay yëf yu bon déedéet li yàlla sàkk lépp baax juróom lu tax nit ñi di am metit bi mu soobee nit ñi ñu dégg yàlla te la metit ñëw ci àddina juróom ndax lu baax rekk a war a am ci àddina si lu tax déedéet ndaxte seytaane malaaka yu boni ak sunuy bakaar ñoo indi metit ci àddina juróom ndax jaadu na ñu jiiñ yàlla sunuy metit déedéet juróom-ñett kan moom moom lépp li ñu am yàlla moom moom lépp ndax nit ñi xam nañu lépp ci àddina déedéet fukk lan lañu war a def bu ñu amee ay jafe-jafe wala metit war nañu wéeru ci yàlla mi xam lépp fukk ak benn su nu deewee ndax dinañu dekki waaw waaye dinañ ci waxtaan beneen yoon yan melukaani yàlla ñoo feeñ ci nettali bi ak naka lañu feeñee ci nettali bi yàlla kenn la amul moroom yàlla moo sàkk àddina ak lépp lu ci nekk moo yilif lépp ba ci seytaane ak malaaka yi gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla gannaaw bi ayuba rëccoo li mu jàmbat ñaanal na xaritam ya yàlla mayaat na ko alal wérge yaram ak mbégte mu ëpp li mu amoon yàlla dafa jub ci biir ay metitam ayuba gëm na yàlla kon yàlla itam bàyyiwu ko yàlla mooy boroom doole yàlla moo may seytaane sañ-sañ mu mettital ayuba beneen yoon dinañu waxtaan ci ni yàlla tànne abraham